mu ngoog yéen a ko waxal seen bopp waxtu bi bu jotee 7h30 jàpp 8h benn télé rek mooy am kon synchro jot na ngir jël seen dose bi nga di teew euh, ci wàllum euh, information monsieur le maire bu gox Kumba Kumbam la maa dafa monsieur le maire bu na koy tey bu baax naka gox ba. gox baa nga fa waaw. Euh, démb fan la woon. démb seen jotaay mais nag laataa loolu dem nañ tam ci dëj bi ma doon expliqué. Ah, dem ngeen fa jaay waaw waaw dem nañ jaare ji après ñu dem seen jotaay. seen jotaay ak. Ah. waxtu <laughs> nee naa la cet cet dafa gaaw. te dafa tax ba ñi ngay teewoo instant bi dafa bari. waaw waaw waaw baax di a a am waxtaan dafa bari. waaw waaw dëgg kii la rek. Ah, oh, oh, oh. <laughs> Bart wax yi doy lay wax baa wax ji kii rek. Hmm? en tout daal. <laughs> non non Pabis bu fekkee am nga ci wax Bart di tuuti rek may si xool Bart wax parce que Bart. moo nekkoon le premier parti d'opposition à l'époque au pouvoir. moo fi ne ba tey c'est le premier mouvement de soutien au président Macky Sall. ah non non de comment ça. da non da ngay yow tey tey. oui patron de presse yi di ma tudd comme ñeneen dañ may xas parce que suñuy continuer man dinaa continuer. tuddal tur dama ne mënoo fi nekk patron de presse nga yor euh, journal waaw journal képp kese rek donc amoo télé amoo rajo nga yor këru 500 millions. suuf ji kooka la dama ne suuf bi su la neexee ma jox la date délibération commission de contrôle des opérations domaniales bu ñu joxee suuf si. bu bu mu wax tur de bàyyi ba dimanche bi jox nga waxe tur bi beneen bi jël wax non c'est andi beneen ma xool. non kii kii kii kii lay waxal ni. non xanaa du dimanche du du du tur dimanche de. xaw ma ci dara. mais <laughs> ba ci baat baat dama doyul ci moom. ma jox la tey scoop. waaw mais Khalifa Sall. dem na tribunal ne dafa am lu ñu ma proposé moom bu ko wax man naa ko wax. nee naa ko bés bu ma gën a kaso comme yow nee nga doo doo wax man dinaa wax Khalifa Sall dañ ko proposé poste premier ministre. ah bon fii te man du ma waxantu maintenant nag ku nga xam ne ni mën na seede wante moom nee na moom du wax kili kilifa bu mag a mag a mag la woon bi parti socialiste. moo ci gënoon moo ci gënoon kawe ci parti socialiste. te moom. waaw eh. mais xanaa dina kawe xanaa <laughs> waaye tamit. mais nee naa ko ndax Abdou Diouf la. ku ne ma dama tudd tur. kon premier ministre. non parti socialiste ki gënoon kawe parti socialiste la. waaw nekkoon na fi ku gënoon a kawe. waaw PS ma ne ko Senghor nee na xanaa Abdou Diouf la. moo fa des. waaw mu ne kooku moom moo wax Khalifa ne ko. mu accepté. tonton daal réew mi ñëpp moom la ñu <laughs> àndal. ndey lii man ndey lii. Ah, ñi nga xalaatul sax ci suuf. travail pour tonton. ma ex travail bi tonton. Barth moo lii. ñu doog a dem bu ñu. lii lii di xew Sénégal tey suñ ko arrêté wulee léegi nii. bu kenn mere kenn ëllëg. daanaka ëllëg bu waa UMS ñëw ne ñoom dégguñu woon bu ñu taxaw ñu ne ñoom yégguñu woon parce que munoo dem ba cour de justice de la CEDEAO ne lu ngeen def ni tegu leen ko ci yoon. ñu wax mooy lan dañu ne xalifa Sall lu ngeen ko téye da ngeen ko bañal. mu woo ay avocat am da ngeen violé ay droit am ñu ne yow procureur ci dossier Khalifa Sall da ngaa par parlo da nga taxaw fii woo télé teel micro nga wax lu nga xam ne ni yoon santu la ko beneen a ngi nii ñu ne leen yeen Khalifa Sall Khalifa Sall dem na ba falu nekk député mu am immunité ngeen jalgati ay immunité donc Khalifa Sall bii lépp lu ngeen def ci dossier Khalifa Sall dara baaxu ci mais loolu loolu loolu ñun tubaab la ñu nàmp ñoom. baat yi nuyu waa Grand Yoff. waa kër Khalifa Sall yi. ñu ne ñu kii suñu benn yaay maire Aram Diop. yàlla baax na baax na ñu maire Aram Diop. maire wax nañu seen mbokk mi. yaayu Khalifa Diop moom ah, maire Aram Diop wax rek seen mbokk mi. yéen <laughs> eh, da ngay wax ne eh, eh, Malick Gakou naka ay mbokkam lan. ah na ah, ah, ko mbokkam kii de téye téye waaw nañu ko waajal ah waaye ki dafa mel moom est-ce que kii waajal mën na ci boppam waaye nag kaay wax la benn affaire réew <laughs> xam ni kenn du wax kee ma xam nii la mi ne ci nguur gee dàq wax ñëpp sociaux yi li leen doon doon sant defuñu ko ñoom waa APR lan la leen sant allez défendre mon bilan ils ne la font pas dañuy dem xase saaga lañ fa nekkee mm-hmm. sosalaate waxi ñaaw rek. Ah, boo côté boobu mën nañ ci. topp ay Ousmane Sonko kii ñoomu seen toxal leen. tey. bu ngeen dañuy léegi mi ngi jël wàllam. ah kay moom naa encaissé. <laughs> jëlal leen kilifa diine yi duñ la rus. dañ naan jëlal jëlal. avec Macky rek wala ñu descendre la réew nag. gis nga gis nga réew mi monsieur le maire yàlla mi ñu sàkk. Euh. bu ko neexoon fii ma toog di wax nii. seetaanoo vidéo boobu ñoon di dee ci plateau télé. ah ok seetaanoo ko. ñuy dee ci terrain football yi nag. ñi di julli ba si yegg sëgg na te duñ si. dee te nee nañu oh, woo nag yàlla lool. Ah, ndax yàlla nee na moom boo julli moom jëmi fii foofu nga ma gën a jege mu faat leen fa. doo sikki xam nga kon bu ko neexoon fii nii léegi mu éliminé fi ñu taxaw nii rek wàccee ma fi nii léegi nii wàccee ma fi léegi ci àjjuma ji baax ah, waaw balaa deux heures nga pare ñu denc ma nga naan pare dégg fii la may wàccee waaw mais moom comme que moom moo am kàttan googu te am na ay nit ñoo xam ne leer na leen ne borom bee leen di rey. Mm-hmm. te ñooñu gëmuñu yàlla. ànd ñoo moom nee nañ Dieu n'existe pas. mu bàyyi leen fi ñuy dund. waa ana moo gën gën gi mineef alayhi salaatu wa salaam. amul. ah. amul yonent yi fi jaar yëpp muy Xiisa di Muusa di di di Daawuda di di di Nuux. di Souleymane waaye yow ma ne dama ne ñooñu ñëpp seeni askan laa lay am na ci ñoo xam ne ñu woon ak ñoom. Mm-hmm. da nga loolu dëgg. waaw. te yàlla bu ko neexoon jour ba rek mu réglé lépp ci lu weer mais daa bàyyi gars yi dund. nit ñi fi julli suba ngoon gu mm-hmm. dégg ba ca. dëgg loolu dëgg añ reer te leen dëcc. ok dëgg loolu dëgg am ñoo xam ne bokkuñ ci benn diine duñ musulman duñ chrétien di dawal ay oto yu baax. Mm-hmm. yàlla jox leen wërsëg bopp. amiin. xam nga kon kon démocratie fa la tàmbalee. ngeen yàlla ànd ñoo ak yow. waaye dara yàlla demee teew lii may jox ñeneen ñi nga xam ne sax dañoo ànd ak man sax dinaa leen na. <laughs> loolu rëy na <laughs> ah loolu rëy na. oh xoo. baax na. yaa ngi li ma wax fii démb rek man moom jàmm laa ñun 7h30 la maag sama rakk ji. ñun ma wax fu dëgg neexee. lu may jàmm daal a ah ñu bañ ñu bañ la. yéen ñu ngi nuyu leen waa Grand Yoff yëpp. nga nuyu leen ba baax na. Aram a ñaanal rek. Papis Gate tey xam lu tax nga dégg li waaye nag. non Papis kon nag tiw na. non Papis Papis génn na fekk. génn nga amul problème bàyyi naa affaire. amul problème bi si si bàtt bi dencal ma ko. dencal ma ko dencal ma ko. ayca yéen a kaay groupe D Mm. président Macky Sall démb ca université. Mbete Guèye. ah di waay. waaw démb. Mm. Mbete Guèye. dañoo wër ndomba campus. Mm. visite président waaw. waaye nag moom président nee na yi fii jaar naa fi bu leen neexee ñaxtu revendiqué parce que man dama daan revendiqué xam nañ seeni problème. ci lu wér. Ah. waaye nag nañ ko def de manière responsable. si diplomatie waaw. waaye bu mu am toj ay kaar wala euh, euh, euh, ànd ak ñi nga xam ne dañoo bëgg ba ci leeral. leeral askan wi kay. leeral askan wi. mu ne ah li mu wax kay leeral. tey tey tey tey Omar. nee na oto yi Macky Sall yóbbu démb fële ca université bu ci nekk gën a gàtt deux cent cinquante millions lay jar. yi mu yóbbu yi sa université. maa la ko wax bu ci ne yow ci jamono ji ngay jënd lu toll noonu li xooxatal sa askan. ubbi tey jàng tey mënta ne. waa parce que école yi dañoo dañoo inondé. waa gësëm gi nag. ah waa nga gësëm. ah di info ñëw ñun ci président Macky Sall mi nga xam ne jubóowaat na. Mm-hmm. ak étudiants yi. loolu la wax moom direct ci info waaw nii le treize la sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou. Mhm. waaw delloowaat nañu ko bàyyi ba de maam Saliou bu wér jëwriñ Cheikh Amar nag nañ dénkaat liggéey bi. le soleil yéen kaay ñëw ak ci président Macky Sall. hébergement bu dee bu doon ñaar la président def na ko ñeent. bu doon benn la def na ko ñaar. da koo doublé. kon ah, baax na maa la wax loolu de. Mhm. ak ñun ci président Macky Sall ak étudiants yi. dañëwaat nañu dégg nga mhm. gis nga ko nii. monsieur le maire Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang <laughs> am nañ jafe-jafe. sa parti bi tas na. man dem naa ci xaaf. non dem naa ci xaaf léegi. non boobu. dem naa ci xaaf di toog di xaar en xool ba xam dina bokk wala du bokk. dana bokk ci ah, xaaf. Ah. yàlla baax na ci xaaf. dégg nga loolu monsieur le maire. Mhm. Abdoulaye Wade jàpp na ne candidature kii di maître Madické Niang xaru la. xaru la ba pare tey Madické nii. Macky ne ci ginnaawam yor commandam du moo koy délégué di daal ci kaw gàttal. kon moom maître Madické Niang la wax. la Sénégal kaay. ñoo ngi ci <laughs> président Macky Sall ñeenti junni ci ay lal ca UCAD. gàtt na leen waaw waaw. dégg nga. Hmm. Moustapha Fall Thiel Karim Wade de yàlla xam ne ni moo la gën a xam ne laay mënu cee bokk. wallaahi wallaahi. wallaahi comme sax xam na ko. wala keneen Karim sax xam na ko. kan ci waxoon xam na ko. Mhm. enquête yéen kaay ñëwoon ñun ci maître Madické Niang ak Ablaye. sëy waroon dox seen diggante tas na. tas na le divorce. tas na c'est fini juli tubaab. kenn waxatu ko waaw ah, maître Abdoulaye Wade nag jàpp na ni gis nga candidature maître Madické Niang pour xajamal la rek. kese wallaay pour xajamal la. Hmm. pour xajamal la te Macky Sall nii moo nekk ci ginnaaw Madické. kon Madické mission lay dox. Madické mission lay dox. léegi nag daal di nay sàkku. Mhm. ci parti am di waa PDS. président su groupe parlementaire bii assemblée te ma dikkee jiite ko nangu ci hmm. liberté et démocratie. lii la am laay wax waaw. suite côté yooyu ñëw ak ñun ci ak plan B bu ma dikkee. PDS daal boo bëggee dégg dëgg. Hmm. yëngu na de. PDS yëngu de yëngu na de yëngu na de. Hmm. yooyu mën a déglu Salam yi ah. le quotidien yéen kaay ñëwoon ci renouvellement bureau bi assemblée nationale. waaw ñoom léegi ñu ubbi. rentrée des classes. Mm-hmm. classe la wax. classe ah, waaw waaw. Mm-hmm. ñii de xamal naa la benn affaire ubbi tey jàng tey bi de mënule. waa kër Ablaye Wade yi Ablaye Wade li mu bëgg moo ñu jëlee ma dikkee ñoom ca groupe parlementaire ba. ci loolu lay dox maa la wax mm-hmm. ñu ne de. ci ñu lay joxañante de ci ci quotidien bi. loolu la waar. ñu lay joxañante kii moo ko daan dalal de. wallaay nguur gu daanu baaxul. billaay mm-hmm. bëñ bi metti la da yàlla ñu ci nguur gu daanu. Mm-hmm. xanaa looloo tax waa ji ne moom de de koo ñam de amul xamul doo ko nam. ñii de ñii de war a xës ba xam. non non a ñoom pour gañ. <laughs> ñii. la ilaha illallah. monsieur le maire. mooy seen arrangement baax. yoo. yàlla baax ba. ñu ngi rey seen bopp de. ñu ay signature. c'est. en tout cas day de. 24 heures monsieur le maire ñëw ak ñun ci. candidature bi. bu ko waaw waaw. na ma kenn ci ginnaaw. bon ñii. ubbi tey jàng tey bi nee na mënu ne. Hmm. dafa demul xaalis. kon ubbi tey xaar. billaahi. ubbi tey banque tey <laughs> ubbi tey ndóol tey ah fi weer wi toll. gis la mel ci weer wi toll. 24 heures nag tey wax nu lu am solo. mu ne la. Euh, politique bi. <laughs> dañ ko war a wutal bu sol xam nga bu sol. yaa xale. géographie. <laughs> bi lay wan yoon wi. wala fi nga féet. ñuy wor gi nekk ci politiciens yi. ak transhumance gii. waaw loolu moom. waaye lii lii lii lii mbaa jàmm la. si seen i seen i ba ma dajeeg président ca Kaffrine mu naan ma ay foo jugee yow dem ba géej futur média ay xamal dégg la bëgg quoi foo leen daje moom il faut mu am. loolu non non non man nag man nag man nag bëgganteewu ma. c'est que moom moo la bëgg wax dëgg waaw man nag. waaw waaw man nag man nag yàlla dafa dogal man nag maa bëggantewul. sa xarit la. man dama dama bëggantewul daal. man dama bëggante man ñi may bëgganteel ñoom xam nañ seen bopp man damay bëggante waa Grand di bëggante waa Géejawaay daal suñu tund wala daal. ay Pikine ak Caaro yeeg yooyu ba xam nga ne yow Tëngéej. yow yaa tax may bëggante ak ñoom. ak meer daaw dañaa. waaw kay merci jeex na waaw mm-hmm. ah, mais moom moom moom buy bëggante moom na dem xool ñu bëgganteel rek moom daal mu ngi téye ñu téye moom tonton na leen téye. waaw ñun ñama ko ñu di xaar. te yàlla tax man nag ñi ma téye ba téye de. moom këram a nii am na sax mouvement ngi ñamaguñ. ñamaguñ ah kon li mu yor na ko dem jox ko ñooñu ngir ñu ñam. <laughs> mën koo jàppale. na ndax man bu dee man man rek. leer sa ko yéene kaay ñëw ak ci Abdoulaye Wade mi nga xam ne meram gi ci boppam la jël yebbi ko ci kaw maître ma di ko ñam. ma na ni nag ma di ko ci parti bi. Hmm. loolu la wax. le secrétaire ñëw noppi gii mu noppi mbaa jàmm la. Hmm. kenn gisatu ko. noppi gi daal en tout cas diis na. ak loolu. dégg nga waxoon ngi nii de. Mhm. jiital parti réew mi nag mi ngi waajal benn bal boo xam ne bis bu ko dóoree nag. laaj mu yemoo kii wuti tul xam nga takk tul wala naan tul. Euh. xamoo ko. ay dal yooyu. Ah, waaw. laaj <laughs> eh, waaw. ay jege ñaale Idrissa nee nañu waajaa ngi waat nag. wax wax ju rëy de. gisoo ko nii xoolal Papis Papis moom dafa aay. non Papis léegi da ngaa far. dégg nga non non eh léegi dem na opposition. léegi dem na opposition def moo tay bàyyi. fi bu ko def xaw ma li ñu la jox wala doyul. Oh. xaw ma li ñu la dañ laa dikk joxuñu ko dara foofu ko fa nekk xiif ray la <laughs> dara joxuñu ko ko. di yoon lu dul ay diggé. on va prendre on va prendre des mesures jeex. mesure daal xam naa ne mën nañu koo jël. mesure rek mesure rek. tamit fii jë libération amaguñ. ñoo waraguñ kenn. <laughs> Idrissa rek coowal bakkat makkaam nja mm-hmm. makkaat bakkat ja boobu ba léegi xam nga. waa Sala Faye. suuf sa àññoo ñun tii. Mm-hmm. cassation verdict cour d'appel bi Khalifa Sall nag xam naa ne bii de bu dee nekkul sanitation it. Mm-hmm. sanitation ngaa ngi nii. cour ah, cour cour suprême la jëm. xoolal de ko président. nga am Fatick. ndóol waaw. làmb sabar. yii daal lañ tuumaal. te rek école yi daal gis nga fi ne nii xale ya ëmb ëmb yi teel yoo xam ne grossesse précoce ñu ngi nii Fatick. milieu waaw. Dakar Times ñëw ñun ci candidat yi ak élection yi journal bi nee na candidat yi dañ def seen déclaration de patrimoine wax nit ñi li ñu yor ak seen yu jabar nag teg ca waaw. waaw loolu la loolu la kii di wax. dégg nga ah. voilà wala wala ñu ngi nii dégg mm-hmm. ñooy nekk ay. type yoo xam ni candidat yu nar a soppiloo jikko sénégalais yi ci vote bi xam nga sénégalais yi mosuñ di voteel ku bokkul ci parti politique politique ñi politique nii de de politique bu dem élection. Hmm. am 2 pour cent. bu hmm. gàllanaa ngi nii. mu ngi borom solution. Eh, kii yee nelaw gars yi. daa yi daa yi dala dégg hmm. mais Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany nag. liggéey fii la sénégalais nag nar a voté koo xam ne doo politicien. doo politique lu leer laa la wax. su naa leer bi nu ko téere. ñaari doomi benn la. waxoo ñi fi jaar nekk société civile monsieur le maire. mosu ñoo passé 2 pour cent. Mhm. ah baax na wax li kon baax na. dégg nga loolu. ñaata baax na. baax na baax na kon mu ngoog. ah ñaari doomi kon ñaari doomi benn daal ñoo fas yéene dikk seen i loi. ci léegi ba ngeen waajal de <laughs> léegi ba ngeen waajal de. ah baax na ni ngeen di safaree ni ci Facebook bi. Mm-hmm. dara yàlla baax na rek. Mm-hmm. maintenir leen ko rek. nga ne baax lu mu wax. si. ah Papis Sibaate kay li mu wax na. dama bëgg ay coow. Ah? <laughs> dama bëgg ay mag a mag ay dage ay sage ñu ngi ci kaso. gis nañ fii député en activité ñu dugal la ci biir ancien député ñu dugal la ci biir ministre ancien ministre ñu dugal la ci biir ay chef religieux dugal lañ ci kaso doo mës a gis magistrat ci kaso xanaa ñoom duñu jum xanaa ñoom duñu jaawale. xanaa ñoom du ñu brûler feu xanaa ñoom du ñu waxtaan ak ay jabaru jàmbur xanaa ñoom du ñu def benn ñaawteef kon ñoom daal ñoom ciy dëkk bi ñoom ñoom ñoo gën ñëpp. ah gros mot eh gros mot gros mot <laughs> ay jabaru jàmbur yooyu moom. bu ko fekk eh, mukk ci kaw a fi fekk. ba ba lëndi ba lëndi. on se lëndi. lëndi. lëndi. lëndi lëndi. waaw. wala bul fàtte euh, ziar annuel bu kii. waaw Cheikh Mamadou Faye bi. merci d'accord cité M3. ok cité M3 man ci kanam ma dikkaat. Euh, leen xibaar yi faram fàcce ko mu jà jàppandi.